projet bi nga xamni moy euh, projet transport bi nga xamni dafa dem ci wàllu euh, euh, projet bi nga xamni compact la bo xamni dañ ko signé diggante gouvernement États-Unis d'Amérique ak gouvernement du Sénégal depuis décembre 2018 dafa nek projet bo xamni ni dafa war a dooleel ba pare manam lépp lo xamni dafa dem ci renforcer réseau yi nga xamni mom moy réseau électricité yu nek biir Sénégal té yu si bëri Sénélec yoré ko fexe ba nga xam euh, euh, euh électricité bi nga xamni bëgg nañ dal mu dem ba ag ci kër gi tém mu nek lo xamni lu mucc ayib que lool yëpp mëna a yemb donc euh, projet bi di projet transport di ñettelu projet ci projet yi nga xamni MCA mi ngi koy doxal fi mu mo doon projet bi nga xamni tay suñu conseil de surveillance ñoo doon ñëw di xool fi nga xamni ne yëpp MCA war na fa dugal loxoom pour que réseau électrique du Sénégal nek réseau bo xamné réseau bu mucc ayib la. Euh, projet yi ban man lay wa projet yi euh, ñetti projet la euh, ñetti projet yi bu ñëk bi moy projet transport Manam noko ko bu baax ni nga xam ne tey autoroute ni mu nekkee ci tali yu ndaw yi non la réseau transport nekkee ci réseau d'électricité.

ñun wa MCA ak euh, wa Millennium Challenge Corporation moy xamné ñi nga xamné ñoy financer projet bi ci gouvernement américain ñoo ak Sénélec ñoo koy liggéey ba nga xamné également lool ñi wax accès à l'électricité ci zone rurale yi ak zone urbaine yi dina mëna euh dina mëna yemb ñettelu projet bi bi nga xamné mom dafa am solo lool lool moy manam réforme yi parce que su fekkee da nga bëgg également fexé ba nga xamné ce réseau bi day nek réseau bu mucc ayib ñepp jot ci courant bi da nga def ba nga xam environnement manam ñepp ñi xam ñi ci siy liggéey muy loi yek muy régulation yek lepp lepp jëm ci commission de régulation jëm ci ministère du pétrole et des énergies jëm ci secteur privé bi lepp lo xam sa loxo dina dugg ci mbiru courant bi ñi fexé ba nga xam ne ñooñ danañ ko mëna a liggéey liggéey ko ak xel mu dal liggéey ko liggéey bu mucc ayib ba nga xam objectif de croissance yi nga xam Sénégal am nako objectif également de réduction lepp lo xam dafa dem ci wàllu pauvreté ci yenn certaines zones yi ñi mëna fexé ba loolu yépp lepp ñu ñu régler ko dal ba mu yemb